jërëjëf euh, Cheikh Abdoulaye Diop Bichri tegal foofu sa baaraam damay dellu siwaat ak yow ànd ak yow nu ànd ak sëriñ bi dugg biir gànnaar ak xar baax yam fa def dafa mel ni résumel nga nu la 11 novembre 1902 bi sëñ bi wàccee waaxu Moussa Sili yëkkati loxoom yi teñ defe na day bàkku mu ne sama bàkk nga ca kanam mooy bu sama sooroor ya taxawee mu jaar foofu nag def wërëm boobu mu wër ba ñëw sànnoo si ñëw kër mbakki sam baabu noonu mu wëree Kajoor ba ñëw Daaru Salaam daal di ñëwaat Daaru Marnaan ruuxale yi tàmbaliwaat ba nga xam ne nag ci la faboo nag ngir war a dem gànnaar mu waxal boppam nag ne man zanna sayri e xibba ami ak shashi misla masiri raqsi ama jay shashi zabata kawnahu jawlan xumra maanaam képp koo xam ne da ngaa jàpp ne sama tukki bii may tukki gànnaar dafa bokk ak bi ma doon dem ci ama jay shashi neen ab dof nga gànnaar moom dama fay jëli ak pay sëriñ bi tuddee ko ardu saalihin di fa fekk gaa yu baax yépp kon maa ngi dellu si ak yow ci kanam nga dugg ak man gànnaar googu nga xam ne sëñ Tuubaa toj na ko fa ku fa mës a dugg rek joxe nga sa bopp waaye bëggoo fa taalibe sëñ gànne mesere maa ngi dellu si waat ci yow yow damay dellu si ci yow yaa ngi woon Mbàkke Kajoor sëriñ bi nag jóge na Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawal sancagul Daaru Salaam def fa ab diir ñëw sanc Daaru Salaam jóge Daaru Salaam ñëw sanc Tuubaa ñëw nag daaru xudóos fi la gise yonent bi sallallahu alayhi wa diggante boobu tarbiya gi mu doon tarbiya murid yi di leen yar ci himma rabbi ashaabaka bil himma wala turabbihim bi dar si fa xat wa rabba kulla waahidin minhum bi ma yaliqu bihi nga xam ne kenn ku ci nekk da laaj bi nga xëyee ba nëgë ni ñaata baat nga fi wax nga génn ci istixfaar génn ci salaatu ala nabi génn ci jàng alxuraan la ca des di larax mu ne la bu ëllëgee bu mu amati dem ba maanaam murid yi di nuyoo ak malaaka yi di dox ci sii sàkket di naan ndox mu tàng diggante boobu laa bëgg nga jëleel ma sëriñ bi Mbàkke Kajoor dikk ak moom Mbàkke jaar ak moom Daaru Salaam ñëw ak moom Touba Alhaji Gana Messere Maxtaar jërëjëf Cheikh Ibrahim jërëjëf sëñ Boussra jërëjëf sëñ Abdoulahi Diop ci waxtaan bi ah, sëriñ bi bi mu taxawalee yoon wi wax ne ku namm yàlla na ñëw ñu dem woote ko ci Mbàkke Kajoor euh, mag ñi jaayanteeg moom ma wax la ne ba muy woote dana yàlla rek ci laa woote ñi ko wuy it loolu rek lañu àndaale mag ñi kenn ku ne buy ñëw la muy wax sëñ bi ñëw naa tey di gan fi yow waaye li ma tax a ñëw nag bëgg nga bernee la ma ko mooy ngërëmul yàlla kon ngërëmul yàlla loolu rek leen andi kenn ku ci nekk boo demee ci mbindum seex Darou Assane Ndiaye moom nga ca fekk boo demee ci mbindum Cheikh Mouhamadou Lamine Gaye Jammooy moom nga cay fekk ba ci ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa yitte rek mooy am ngërëmul yàlla nga xam ne melowoowu tax ba mu jógee ba mu nekkee Mbàkke Kajoor nag dafa yar taalibe yi yëf yi mu ju xat xat sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na minhaaj bi nga xam ne moom la yor sëñ bi yoroon muy méthode bi nga xam ne moom la daan tërbiya mooy daan leen xiifal di leen marloo di leen sikarloo di leen beruloo rawatina sax jigéen ñi waaye ba mbir ma siiwee nag ñu tàmbali di fitnaal yenn murid yi di leen xatal waxtu wu nekk sëñ bi di leen delloosi di leen muñloo di leen xool ci saxaabatu rasul di wax ne ñooy seen ci diine ndax daj nañ lu gën a metti naq nañ leen ci ay ndox walal nañ seeni deret nangu nañ seeni alal génne nañ leen seeni kër ba tey seenu tagg na fàng ci alquranul karim bu ko masaa wax daana leen ci tegal lil fuqara muhajirina alladina uxriju min diyaarihim wa amwalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaykum asadiqun na ngeen muñ ba egg ci ne leen xanaa dana leen doy bis ba nga xam ne yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim bis ba nga xam ne bu ñëpp daje kenn kuñ sa turu njiit ca lañ lay woo bu ñu leen wooyee yéen murid yi bu ma leen wujjulee de dana doy ci ku leen daan reetaan wala ku leen daan doye dal ba yëf ya xatee mu jóge fa ñëw Mbakke babal def fi ab diir Mbakke yit ni ko Cheikh bu waxee bu sëñ bi daan julli ji danaa hmm. yóbbaale Cheikh Ibrahima Fall hmm. Cheikh Ibrahima Fall moo tax sëñ bi tuxoo Mbakke lu ne xew na fa waaye Cheikh Ibrahima daa mësa nangu ku jiite sëñ bi bu nit masaa nekk ci sàppe si bu keneen masaa jiitu buñ kàbbaree Cheikh Ibrahima day daw ci biir sàppe di wax naan aadoom ah, sëgg nangam si nangam sëgg nangam siggi nangam mm-hmm. mujj bi sëñ bi di ñëw da daan bàyyi bu ñëwee ba ci yoon wi lay bàyyi Cheikh Ibrahima Fall ñëw agsi ba am na yu ci xew yoo xam ne au fi baax na umur maa la jibin mm-hmm. bi sëñ bi sañ ci dëkk bi ñuy wax Daaru di dëkk bi mu njëkk sañ mu sañ ko ci dësës muy cent 1304 hijriya dëkk boobu ci weeru wii di safar la ko sanc muy daaru salaam ñaan ci boroomam it mu nekk dëkku dëkkub yar dëkkub tarbiya dëkk boo xam ne dëkkub jàmm la ndax rabbi biha min al wara maa laa yuat yaa xayra man rabba wa xayra man waat muy dëkk boo xam ne it mag ñi fa leen tàmbalee di di jaayante waxtu wu nekk ku dégg sëñ bi rek ñëw ba mujj dëkk bi xumb lool jaxasoo bi tàmbali am ñenn ñi denc seeni bokk ñëw li seet si bi jaxasoo bi baree nag mu bàyyi bàyyiwaat dëkk boobu di Daaru Salaam ci wësës di 1306 jël dëkk ba ak juróom-ñeent fukki donga ak juróom-ñeent rafaatale ko rakkam Cheikh Sidi El Moukhtar maam Cheikh Anta Gaawaan mm-hmm. daal di ñëw ci dëkkam bii di Tuubal sax muy dëkk boo xam ne bi mu fiy ñëwit euh, wër na ci béréb yu bari ci aneer yépp ngir di dàkk béréb bii muy xool li fi nekk ndax béréb la boo xam ne euh, mboolem gaay yu baax yépp fëx nañ da wuti ko ngir bëgg ko am muy Touba waaye Touba moom tànnal boppam ku tedd ki Cheikh Amadou Bamba ngir sëñ Touba moom ko mm-hmm. bi sëriñ bi jaaree ci yeneen béréb yi ba suñ borom won ko bérébam bii di Touba fii jumaa ji nekk tey ak béréb yim jaar nga xam ne mag ñi daanan ko topp sax di ko sedd di ko wër di fukk ak wala fukk ak juróom yor ay gànnaay di jóg guddi di wër topp àll bi di xool sëñ bi ba xam fan la nekk ndax àll bi mu dugg waaye àll bi lëndëm na lëndëm goo xam ne daanan def fu jaar damm ngeer wala ñu damm dara ngir bu mañ ñu ko mën a xam fi ñu mu ne ci kër kër yi digganteem ak borom waxtu woowu muy nekk di réer sax ci biir Touba ñu di ko seet am na bis maam borom Sam maam Mor julli ci jàkka ji njeere Mbàkke ba julli gee ba noppi génn dajale fere yëpp ne damaa bëgg waxtaan ak yéen suñu waa ji hmm. ndax damaa bëgg ngeen xam ne woowu leen ba ngeen ñëw mu door a jox mu door a wut lu mu leen jox daa am lu mu leen jox ba nopp door a woote waaw leen ba ngeen ñëw mu door a wuti daa am door a woote hmm. ngir delloo si nit ñi ak dalal leen ci seen xel ba mu ñëwee it fa mu gis nga mbal nekkoon na fa te buuba jam moomee la yónni woon daaru salaam doon ko wooloo ji ma Massamba Diop Sam ngir yoon woowu mu takkoon ngir bëgg a siyaare ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te wax ne am na ci ay gàllankoor waaye fii jumaa ji nekk tey nga xam ne mbaarum ngeer la fi defoon def fi ab dóor dóor booba sikkar lañ daan def gis nga boo gisee sikkaros Baay Faal si Cheikh Ibra Fall waxtu wi muy ñëw booba sëñ Tuubaa mi ngi tërbiyaa mag ñi ci zikkar ndax tawaalifa gut booba taalifa gut xaside yi nga xam ne dafa jëm ci matxu yeeg salatu yi booba sikkar lañuy def bu jëmee ci jàkka ji dañuy ànd ak moom di sikkar ba mu agsi ñu toog mu def ay nawafilam bu ñuy julli ñu ànd bu jullee ba noppi dellu siwaat ñu ànd ak moom bu ñëwee benn mu ne leen jekki leen wala mu bàyyi leen lu wéyal di sikkar loola leen mayoon ñu dem ba mboolem kiiraay yi doxoon seen digganteeg sew-sew yépp dañ ñu man di jàkkaarloog mboolem secret yi di jàkkaarloog mboolem pays yi nga xam ne doomu aadama doxoon yegg fa sax jafe woon na ñu ngi ko doon amee ci sikar bu dakkan xayru taami di muridi saaliki dawaamu dikri dil jalaali maliki hmm. sëñ Tuubaa nee na murid bi nam ma jëm ci yàlla ñam bi gën ci moom élément bi gën ci moom di ko dunde mooy saxoo tudd borom bi subhanahu wa taala loolu moo tax ñoom ñu wéyaloon ca saxoo sikar sooseen di xiif di mar di xëy suba ba ngoon nga bu pepp wala kolkolub cere la ñuy am kibéerug seetal ak ndox da leen di jox buñ ko naanee buñ ko amaatee waxtu waa dellu si waat te loolu yàqu seen pas-pas ya ak seen yitte juróy ya ak doxinu mag woowee ñu doon dox moom mi leen di tàggatit te di leen tàggat ci himma mu yitte ju kawe waxtu wu nekk mu di leen gën a joxañ ak jëme ci boromam ci njaxlef ga ci yitte ju kawe ja ci doxin wa te du may kenn benn occasion bu jàll nga xam ne lu ñëw rek mu laaj la ca noo ca doxe nga xam ne loolu moo indi woon léegi-léegi mu ne nit ñaati baat nga fi wax bi nga xëy ak léegi nga ne nit nuyu na ma de fay naa ko waaye ana waa kër gi mu ne bëriwut waaye ba léegi na gën a néew ngir won la yàkkamte gi mu yàkkamti ak xam gi mu xam fa mu jëm na mu koy doxe foofu mu nekk dafa tërbiye mag ñi di leen fi tàggat nga xam ne fii jumaa ji nekk tey dóor dóorum ngeer a fi nekkoon dañuy wax ne amoon na juróom-ñetti kees kees gu njëkk gi rek moo amutoon ab néeg waaye kees yëpp amoon na ab néeg fii tey Cheikh Mahamadou fii jumaa fii sëñ bi nekk tey Cheikh Mahamadou Lamine Bara moom xaadimu rasul feeñe fi feeñe fi jamono muy bàggante nag diggante daarul xuduus diggante daarul rahmaan muy daaru naar kër sëñ Chouaïbou daarul minan di yendu fii léegi-léegi mu ñëw fanaan si fii di bàggante di tab def nag doggu tawaalifam yi nga xam ne mooy tàmbali xaside yi nga xam ne lu mel ni taiya raiya miimiya nooniya mel ni mooy xalbi lahu fi axtaabi gis mi takraaru ak hamad suleyma bi sarfi an masiyaati alxalbu minniya fii sal yawmi xat salima yooyu yëpp nga xam ne da koy da koy def ak xataaba xal bi lama laahu sallama ni xasida yooyu mu tàmbali di ko taalif di taalif yeneen yeneen yeneen am ndaax yi nga xam ne doxin bi di gën di gaaw jëm ci jëm ci boroomam nit ñi di ko dégg waxtu nekk di bàyyi ko fu nekk di ñëw waaye bu ñëwee lu ñuy wax la sëñ Mouhamadou Lamine Gueye jëm mooy waxoon rek haza ziyaaratuna yaa rawdatal xutaba yaa xutwatal ulama yaa malja albasar xiraaya fawzun wa ridwanun wa takrimat wa afiyatu daarayni yaa wasar lii rek a ma indi woon mooy ngërëmul yàlla lu sax daal ku ñëw rek indi loolu mhm. moom mu taxañ am fu mu jëm daarul xudus daarul rahman muy kër sëriñ Chouaïbou daarul minan kër kër Basiiru mhm. béréb yooyu nekk béréb yoo xam ne da da ci da ci xam ne benn béréb bu ci nekk ñaata am daax ñaata taalif dafa taalif ñu suul ko fa yoo xam ne lu ci nekk kenn xamul dayoom ci digganteem ak tagg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kenn xamul dayoom ci digganteem ak julli ci yonente bi alayhi salatu wasallam ndax ni mu ñi tagg ñi ñiy tagg yonente bi sëñ Tuubaa ni mu leen rawee loolu du sëñ bi moo wax ne maa leen raw wax na ko cay mbindam mm-hmm. dun ay taalibe ma toog naan sëñ bee raw mm-hmm. waaye sëñ bi nee na yonente bee ko wax ne yaa ci raw te loolu defe naa jàngkat yi damay wax ne li ma jaaxal fi ne tey koo ci tuddoon Yuusuf ibne Ismaayil an-Nabahani xam nañ Yuusuf ibne Ismaayil mm-hmm. ndax moo taalif jaami karaamatul awliya ñoom d'accord nañ mbiram te jaami karamatul awliya dañ koy jàng ci adduna bi yëpp ñu dajale ci dajale ci mboolem karaamay awliya yi Nabahani moom ma nga nekkoon Liban ku mënoon a tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam la wax ne moom egg na ci sax bu sëppee xalimaam yonent bi jox ko loxo sallallahu alayhi wasallam te jamonoon ci wut ak moom mhm. sëñ Tuubaa la bokkal jamono waaye gisante wuñ ci nee na am na bis dafay dugg xalwa di laaj boroomam na ko ndax am na ku tagg rasulullahi lu toll li ma ko tagg mhm. nee na yonent bi ne moo ne ku ñu wax Ahmadou Bamba kenn jutul asaka ci tagg ba Hmm. kenn jotul asakaam ci tàggam te Nabahaani moom i wax na loo xam ne c'est pourquoi bu ñu waxee dara ci sëñ rek ñu ne ñii dañu nekk daanaka wala ñu nangam mais Nabahaani moom gisul sëñ Touba ci zahir te dem na ba wax ne ku rasulullahi raw Ahmadou Bamba raw la pert ga hmm. nga xam ne loolu wax ju wax ju wax ju mbind mu leer la ba nga tàmbalee ca xawa njaari mu uluma lillahi wa fadlan la yamunnu fadlu gayri mamnunu xawal qadima lasi law lahu ma sajadat ala aljibahi walam tuqra bihi noonu man faatuhu mamadul muxtaari min mudaril faatuhu xaalil muxtaari maxbuunu est-ce que kon kon kon dañuy lungu ne ñooñu loolu ñu wax mel sëñ Tuubaa sëñ Mulaay bu soo wax ne bu dee tagg yonent bi gët ida staraxa al ubaadu kaana amaamahum wa fii matti xayril xalqi xaydul awaabidi laqad faaxa kullan fi salati ala nabi wa fiha bada taqdimuhu bil mashahidi bu dee jiitu tagg rasulaay moo ci raw bu dee jaamu yàlla moo ci raw mu def am daax yu toll noonu bi ñu ñëwee ba ci atum bayses di mille trois cent douze mu gañaa yi mhm. def engagement boo xam ne xam nga dangay ngay dégg léegi ñu ne diw gor nga mais sëñ Tuubaa mooy gor mhm. lu ko dal goree ku ko yóbbe ndeysaan jërëjëf wallaay ndeysaan jërëjëf sëñ Gana jërëjëf moom murid la ànd na maag moom dem Màkka waaye manta wax ci sëriñ Tuubaa ñaari baat jooyut waaye loolu la ko sëriñ bi fay àdduna bépp sopp ndax sëriñ bi moom ñemewul bor dafa am fay saa boo ko lebalee ker guddi la lay fay foo jot xalu kon sëñ Gana yaa ngi Touba Touba googi la sëriñ bi defee lu am solo loo xam ne gone yi toll ci am jom dañ ko war a déglu ndax sëñ Touba waxtaanee ko day may nit jom xam nga sëñ Touba dem na ci géej gi ba dellu si amul juróom fukki at al iradatu qawiya dem na ci géej bi ma del si amul juróom fukki at keroog bi muy gisanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci daaru xuddoos ñeen fukki atam manqué na ñetti weer mu ne ko bis ni ki tey mën naa la ko tëbal def la xutbu samaan mu ne ko sama bët jël na loolu kuy wut xaalis bañ ne la milliard a ngi nga ne man bëgguma milliard ñu ne la amee ah, sëñ bi loo bëgg nag nga ne machine bii defar milliard tañ gaarante ko ci adduna bépp xaalis bu ma defar mu walaa bal ci adduna bépp machine bi laa bëgg te machine bu dul laa bëgg li man a defar xaalis fu mu mën a toll ba dootuma ñàkk xaalis yonent bi ne ko négal ma laaj ko sa borom daal ne ko sa borom nee na ñaar nattu la ak juróom-ñetti fukki nattu ak juróom mooy ay suratu bàqara mu ne ko man dey ruugi sàkkuma ko bay xam lu mu attan ak lu mu attanul waaye neel sama borom lu ma man a teg bu ko ruugi attanee sama jom dékk na ko kookoy gor kookoy géer masta weddi masta miim ni ko sëriñ bi waxe nga xam ne tukki boobu nag lay bëgg a dugg di ko waajal pour dem mbàkki baar yi te tukki bi sëriñ bi daf koo fonk ba tuddee na ko alqurba mooy tumranki fonk tukki bi ba tuddee ko li ñuy tuddee maanaam tuddee na ko it xayba mooy li ñuy tuddee fàllu wax na ko wa sababu xaybati albahina sëñ Basiru nag dafa wax ne euh, tukki bi dafa am ñaar yu ci nekk zababu baatin ak zababu zaahir mu ne dafa mel ne baabul baatinuhu fi rahma waaye nag wa zaahiruhu min qibalihi al-azab dafa mel ne biir bi dafa mel ne maanaam baatinu tukki bi lépp lépp yërmande la waaye saayir si nga xam ne dafay nuru ay nattu ak ay nangam euh, loolu lépp xéewal la ci ñun murid yi taxul si Ahmadou Bamba di dem kon sëriñ bi jóge na Touba sanc ko woolu fi sëñ Masamba Diop saam buubu jàmmoo ko wooy ndax rëbb du tiit rëbb gaskatub teen akub rëbb foo ko fekk day am xam-xam ne buubu ja bu doon tiit bi mu gisee sëñ tubaa ci àll boobu mu sol xaftaanam yu bari yooyu takk ndiggam takk kaala gi ci ndiggam li maanaam te tene yi ak bukki yi ak maanaam rab yi àll yépp ngi woon ci biir dëkk bi booba moom muy ab rëbb xam fi gaynde yi jaar xam fi bukki yi jaar ba mën a teggi te sëñ tubaa moom du leen daw foofu la njaay àll gi muy gaynde njaay àll gi mooy mooy mooy mbaam àll gaynde gi di ko dàq ba mu ñëw làqutu ci ginnaaw sëñ tubaa moo tax fii dañ fi rawe kuy làq mbaam àll doo bàyyi nit sëñ tubaa ku ànd ak moom mucc nga àdduna ak àllaaxira sëñ bu sara sàmbu ñu ngi bëgg dugg ci tukki bi yaa ngi doon tollu jeewal jeewal googu nga xam ne fala la waxee ne fala la iblis njëkk a ñëwee songu ma ngir gàllankooral ma sama liggéey waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ahlu badrin gi ma àndaloon dox sama digganteeg moom mu wax ne nag bi may dem ci géej gi jaamu yàlla ñëwuma ci kenn ñëwuma ci malaykatul muxarab ñëwuma ci nabiyul mursal ndax dafa wax dafa am lu ñu tuddee kamalul islaam ak kamalul iman ak kamalul ihsaan nee na loolu rek mu yóbbu woon ci géej gi ñu ne ko kamalul islaam mooy lan mu ne al ñu ne ko kamalul iman mooy lan mu ne al yaqin ñu ne ko kamalul ihsaan mooy lan mooy al wusul ila allah moo tax lillahi qad wasaltu inda galwaa ba mu demee galwaa la àgg ci yàlla rëkk ba sëñ tubaa ni mu doon jaamoo yàlla ba àgg ci yàlla rek ku ci dolli virgule doo dem sëñ Boussoula yaa ngi jëmoon jeewal dañ lay topp ak yow nga dugg ak ñun ak jeewal dem ak ñun ak ndar tàbbi ak ñun ci géej gi. jërëjëf euh, sëñ Ibrahim jërëjëf sëriñ Gànna jërëjëf sëriñ Abdoulahi Diop Bichri euh, dafa am ku ma sa ñëw ci Seex Ibra nuyoo làmb ji baam génne la ca nekk jox ko ñu ko faal ba yàgg mu daal di ni ko fas wi ma indi woon day joxe naa ko fi dama la koo jox àddiya Seex Ibra ne ko waa ah, ah, def nga lu baax doom def nga lu baax mu jekk ba ci yàgg mu ne ko doom ji ma àndal jébbal naa la ko àdduna ak àllaaxira Seex Ibra ne ko ah jébbale sa doom de mooy jébbale sa bopp rek mu daal di yeeyu jooy Cheikh bi na ko eh ah fenatoo nag <laughs> fenatoo nag fenatoo Cheikh Ibra daan wax ni adoom ah, bayliku leen murit day bayliku bayliku di leen tax a daanu ku bayliku itam doo daanu mooy li nga dégg sëñ bi wax ni min sihaabin tabattalu li wakilin qad hadaahum bi nuuri xaqil yaqiini sëñ bi bi mu xëyee mbàkke baar yi tàggoog bokkam yooyu di war yendoo dox sëriñ bi nee na wasaadafa xuróojohoo xuróoja qaa'idi jeyshi min nahwi luga fatalaqiya inda jeewal xasiyata zalika al yowm waxtu yi nga xam ne ci la sëñ Tuubaa waree Mbàkke Baari jëm Ndar ci la commandant Leclerc bi ànd ak soldats yi ak espèces yi ware Lugo jëm si Mbàkke Bari di jàpp si borom tubaa dañoo daje waaye jeewal taxul woon sëñ bee jóg tubaab yi yendoo dox jëm si Mbàkke Bari sëñ bi yendoo dox jëm Jolof mu ni fata làq yaa inde jeewal dañoo daje jeewal hacheta zalikal yow ma ca ngoon ak bis boobee di gaaw fukki fan ak juróom-ñett ci yoru safar jeewal mooy maxalu liqaa yi sëriñ tubaa nee na bi ma taxawee ci tund jeewal taxaw ci tund wi tiim xur wi commandant bi ak espace yi taxaw ci wala tund tiim xur wi sunu ñaari maari jey jàkkaarloo kee yor ndigalal borom ndar ki yor ndigalal muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee ma yaa ayyuha llazina wax ni dama nangoo ci làmmiñu sëriñ Moodu Kan Baay Murtala mhm. mu ni keroog bi sëñ tubaay jóge Mbàkke Baari bi mag ñi ku ne wax ku ne wax Seex Ibra Faal mel ni koy matu mi ngi wànguraay di muug muugi rek ku ne sëñ bi laaj la pexeem loo xalaat nee na ba yàgg sëñ tubaa ko Ibra Faal yow loo xalaat nee na sëñ Seex Ibra dafa yerum ay loxoom di téen ca kaw ba yàgg mu ko ah sëñ Bàmba bett nga ma sëñ Bàmba bett nga ma sëñ Bamba damaa defoo ni bi nga may woo ci liggéey bii bi ngay wootee di ma fal ci nguuru yàlla gi ba ma yëg ko sa bisub taw xew a tax xanaa moo sëriñ bi doo am sa bis bi yenn ko ci sab donkal dem moom bàyyi ma sëñ Bamba bàyyi ma ma naan géej gi gaal gii du am fu mu aw yóbbu la mun ko defal gaal gi bàyyi ko tubaab yi bàyyi leen ni leen yàlla bindee te bàyyi géej gi ni ko yàlla bindee te bàyyi maag tubaab yi sëñ bi dox na wutin jeewan ak yi ca xew yépp ba yegg jeewal jàkkaarlook ñoom xam nga sëriñ tubaa nag stratège la nun ñii suñ bàyyi demoon 14 18 noo xam li sëñ tubaa def barke borom tubaa bi sëñ bi taxawee ci wéetund tiim xur wi lëkkale rek taxaw ci wéetund tiim xur wi sëñ ñaar maay jëy jàkkaarloo tubaa bi dañoo wax ni la force peut vaincre la vérité la vérité peut vaincre la force mais lu ñoo de la force et de la vérité est invincible doole dana mën dëkk dëggit dana mën doole waaye sëñ tubaa day doole ju ànd ak dëgg du manant tax kanam rek la jëm sëñ tubaa nag dafa def foofu stratégie de guerre ndax bi mu jàkkaarloog ñoom te moom amul ay gànnaay mi ngi seen seen gànnaay mel ni sunu su fokk su focc daf leen a jëkk ci biir xur wi sëñ Touba daf leen jëkk dafa jëkk tubaab yi dafa jëkk a wàcc ci biir xur wi bi mu wàccee ci biir xur wi rek daal di sànni fas wi daal di jublu xibla tàmbalee julli léegi tubaab yi daal di wax ni le Cheikh s'est constitué prisonnier ministre bi léegi def na istislam joxe na boppam fekk stratégie la. ñoom attaque armée la jëmoon fa moom la ñu doon jëli di ko jàppi far dajeeg moom en cours de route léegi ginnaaw nag def na istislaam luy nuru istislaam ci ci seen kanam wàcc na la mu waroon àndul ay ngànnaay yorul benn euh, luy arme buy waree day riposter wala day bañ tubaab yi itam daal di jëf luy nuru ak ñeewant ak néggandiku daal di koy gaw gaw moo ñu encercler ko. waaye sëñ tubaa ngi ci der bi rek di julli waxtu la woo xam ne wii achiyata la maanaam ngoor la julleegul tàkkusaan waaye mu julli rek dinaa fi la dinaa fi la ba tàkkusaan jot mu julli toog fa di tudd yàlla turu yàlla ñu wax la sëñ tubaa wax ni moom la yor dégg nga mu ni ay ya min nii laahu inde jeewali iblisa isnaadaytuhu bi yaa mu yortu turu yàlla woo di ko sikar ba yàgg tubaab bi di ko nag takkal nu dem mi ngi guddi takkal nu dem mi ngi mu ne ko nag duma dem fii laay fanaan ñu ne ko fanaan yow dañ la doon jàppi far dajeeg yow sëñ bi ni leen damay fanaan te sëñ bi du wax di ca dellu léegi bi ñu xamee ni sëñ bi léegi dogu na ci mel na ni ku ñëg ci day day fanaan ñu soññ ko soññ mu të ci lañu ñu décidé nag exécuter ko foofu ci jeewal pour liquider ko fu fetal ko hmm. bi dara desul ñu ñu war a soqi ci moom sawar sawara ci la ñu daanoo ñoom ñoom tubaab yépp dañoo daal di daanu luur di say di wéqu di sanguwaay seen yére ya ba ne nemm sëñ Tuubaa ànd ak guddi gi réerul tëddul dara ci mu ko du jaww kii rek la belle étoile loolu mu wax ne eh, loolu mu wax ca xuqa ni eh, yan suuna na daaw daawa soxdaa fi qiyaamihumu mustaasine bi askaarin wa ayaati gongi ko buróoj yi rek ak bidiw yi di wétli ko boroomam fanaanee xool fanaanee jaamu yàlla tubaab bi di luur ak a say bani nemm ba fajar ca fajar ba mu jullee fajar ba fa la sax ba jullee fa fay nange ca dimanche ja ñeenti rakk yor yor fa la ko jullee ba takk ba jëkk door a wax ni ndax ñii noonu duma fanaan dañuy dem am duñu dem dongo yaa leen yee di leen wéq ñu war nga war gu bon ci la commandant bi defee rapport wax ni c'est au moment où nous à son désir que nous sommes par une sorte d'éclair et nous sommes restés évanouis jusqu'au matin jamono yenn dogoo ci soq ci moom sawara woowee su nag ca lañu mel ni danoo ak dënnoo dal ci suñu kaw ñu daanu àndatuñu ak suñu sago di xëm ba ca fajar sëñ tubaa war ba mu waree loolu ñu wax traîner dans la boue sëñ tubaa def na ko tubaab keroog sëñ bi dafa daal rek daal di jaar njokk siyaare maam maxtaar nubbe jóge fa yendu ji kokki fa la yendu keroog bisub dimaas ba fa lay yendu ba timis si bëgg a jot mu xiin penku ba sow tàmbali la ndox xam nga seeti su mois de août wax set la xiin taw xiinul taw ci bi bi mu xiin penku ba sow tàmbali la ndox ci la sëñ Tuubaa génn ànd ak ñoom ñuy tawte mu fanaani Louga ba mu dikkee Louga bokki njàmbur yëpp ak seexam yu baax yooyu yëpp ak murit saadi xam yëpp ak jullit yëpp topp ko ca suba ak altine ga la taxaw ca gaarub Louga ba gaar boobu nga xam ni mu ngi damu ci kaar gi gaar yi ndax fa la sëñ Touba wàcce fasam wa nag ñu duggal ko saxaar saxaar goo xam ne gii locomotive la muy saxaaru vapeur saxaar gu ñu xam ak mat murit yi bari nañ lool seexi njaabur yi bari nañ lool sëñ Madou Gueye jëmmooy sëñ Bara Fati sëñ Madou Lamine Gueye ñoom sëñ ma Amar sàmm ñoom bokki njaabur yooyu yëpp dagg fas yéene fu sëñ Tuubaa teg tànkam ñu teg fa tànkam waaye tubaab bi pour bañ désordre dañu ni leen beru leen ci saxaar gi dugg leen ci yeneen locomotive yeneen wago yi waaye sëñ bi képp ñu ber ko ci yenn wago bi dara desul lu mu déparé saxaar gi jëm ndar dañoo décroché wago yi xam nga saxaar bopp bi rek ay daw wago yi ci des yëpp dañuy watu oto bu ñuy poussé yam oto bu ñuy remorqué yam ñu décroché wago yi ci des yëpp. saxaar ga daal di déqi <coughs> locomotive ba daal di déqi bopp saxaar ga déqi ca la tubaa nekk di liit saxaar saa ngay jolli waaye bi saxaar si saxaar gi saxaar demee ba ñee gisatuñ ko ñee ngay yuuxu daw ñee ngay topp saxaar ga ñee fas seen i mbubb ñee lonkale seen i baaraab daw wuti ndar ci biir saxaar googu ci la sëñ tubaa daal di yëkkati loxoom ca la way xës rek ala inna ni usni ala xayri munami inna ni ostu bil ilahi l muini min jamihil aza wa kulli lahiini saarifan himmati li rabbi taala raajiyan sax yahu bi man maay nii maasikan bil kitaabi maska dariirin bi yaddi alqaaidi albasiiri almuhaymin dégg nga ci biir xasida googu mu naan wa waxisi wa rifaati wa kunuusi wa bihi atajin qiyaadal moo xarum xaruni sëñ bi ci biir xasida googu ci la fi islam boo déggee mu naan rabbi wafkuk asri wa rahni fa inni bi zunubi mukabbalun fi sujuuni waxul jëmmi boppam ja rabbi wafkuk raxnal islaami booba lislaam la ñu jàpp booba sëñ Touba moo tax daana wax ni tubaab yi jotewu maak ñoom dara seen kilifa gii di iblis moom laa jam xëejub dëgg cib xol mu yuuxu ay bokkam wallu ma nga naan rab bi ko asri yi jot jotal sama njafeel war rëx nii te jot sama tayle lislaam la ñu tayle booba fa inni bi sunoo bi mu kabbalun fi sujuuni rabbi inni abdun kasirul maasi fal maasi haa i wa baa i wa siini rabbi nii rabbi raqi nii rumashaani zakki lii nuna qabla faa in wa siini waaye déglu listajib daawati bi maa faaqa zanni ba bi maa faaqa rabba kula sunooni moo tax histoire yoonu géej gi léeg-léeg nga dégg kuraan weesu nañu sëñ Tuubaa demoon ci géej gi bu nu ko weesoo fu nu jëm lii rekk la def lu kenn deful dajeeg tubaab yi rek semmal leen dem dellu si di kenn ndamal sëñ Tuubaa lii mu am ci tubaab yi bu doon football dama naan trois 0 la score bi trois 0 la day ndamal ku ñuul ci ku weex ci moom la jëkke ci la mujjee ñuul kukk walaysa yujibu sawaadal jismi safaahatal fataawa suu al mi nekk ki nga xam ni il a la civilisation de l'homme noir boroom dër bu ñuul te sëñ tubaa waxoon na leen ko ca Masaalik ca bañu boo doon yëg doon borom dër bu ñuul ay nit ñu weex jàpp ko mu doon kenn ci mbooloo bi muy dem di kenn képp ñoom ñu di aw mbooloo di déeyoo séeri pexe di nas ay pexe am ci moom sañ-sañ suñu borom jox leen ci moom sultaan lu leen neex jëfandikoo ko ci moom te du daw du raf du miim du weddi waaye muy ndabal jullit bi ci yéefar bi ñoom ñëpp ñu di mushrikoona muy wax ak ñoom te ànd ak li muy doon doon seenum noon ñoom ñoo ko bañ waaye moom leen rek la leen bañee muy weddi gi ñu waat yàlla weddi rasulullahi te sëñ tubaa sax ngi leen di laa biire yaa jumlatan qad sallasu bi dalaalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu di leen di leen di leen wan lislaam ca na lislaam mel ànd naa ñoom juróom-ñetti at yu manqué ti weer mus ta jullee menn mbubb menn mbubb musu koo jullee ñaari farata musu koo jullee menn póot li yàlla digle lépp moo ci man moom dong ko man sax xusu sinatakum inda kulli masjidin mus ta jullee menn mbubb ñaari farata mus ta jullee menn njàpp ñaari farata mus ta julli mukk te naafilawul mus ta julli mukk te noddul julli mi nga xam ne mooy synthèse islam dans sa globalité mooy lépp l'islam julli moomu la defoon nga naayam di leen ko timbax fu ñu tollu muy julli ci seen bureau yi di julli ci seen kanisa yi di julli ci seen caserne yi di julli ci seen camp yi di julli ci seen cellules yi di tudd yàlla ci kaw ñu di ko dégg sëñ Tuubaa gaynde la wéet musu ko nag musu koo tere xeex mus sa soppi ko barab musu koo soppi wéet musu koo soppi situation musu koo soppi il toujours été égal àll lui-même foo ko ba sa fekk rek Ahmadou Bamba nga fekk moo tax daana wax ni bi mu ñibbisee dafa wax ni seex sëñ gaa ni ko Mbàkke mu ni ko yàgg naa ci àll bi waaye ba ñu ma kenn ku topp samay tànk musuma saalit fenn ko wax seex mu ni ko Mbàkke mu ko yàgg naa ci àll bi waaye ba ñu ma kenn ku topp samay tànk musuma saalit fenn ban saxaar gi yeggee ndar mu sax fa bàqiitu saxru safar wa saxru rabiul awal ilaa yow may nii sax na fa la des ca weeru safar wa ak weeru gàmmo ba mu des ba mu toll ci xëy loolu la am ndar ci diir boobu ca lañ taxawal conseil privé sëñ tubaa nee na moo tax màggalu ren gii dafa nuur lool yoonu géej ga barki sëñ tubaa màggalu ren gii dafa nur lool yoonu géej ren màggalu bu saarix yi la ren màggalu sëñ tubaa la feet yëpp lañu màgg lañu ñu annulé màggal yëpp la ñu annulé bis yëpp la ñu màggal gi rek lañu ñu màggal ren aj màkk sax dañ ko annulé ndax ren mooy màggalu sëñ tubaa ren at mu metti la mu tiis la waaye atum gor ñi la moo tax la sëñ Touba defoon rek la mu saadix yi defaat ren ñëpp bañ dawee wuti dee ba dee dogale leen kenn ku ne dañ bu ma ci naree dee dëpp sëñ Touba ni moo ko dee dee xañ doo ko nekk waaye noonu lu nu bu dee dee dox su diggante sëñ Touba du nu taxaw a ñu ko noonu corona sunu mbokka feebar bii sunu mbokka sunu mbokkum taalibe danoo bëgg nu bëgg ko du fi rey dara du fi def dara du fi def jenn lor dañuy màggal rek ànd ak moom muy dogal bu yàlla dogal nu fas yéree màggal te bàyyi suñu bopp ak yàlla ndax yàlla du lii rek la am du épidémie bii rek la am yàllaa ngeeg yeneen yoo xam ne yii bu ñu bàyyi woon ak yooya kon kon deegu mitti la wala deegu li yàlla yor te xamuñu ko te mu nëbbuñu ko corona ci gën a tuuti waaye la sëñ tubaa defoon rek la mu di def ren muy bu ma dee bu ma ci naree dee dëpp la ñëpp wax sëñ Tuubaa yi bu ma ko dee dee xañ du ma ko ñàkk waaye noonu korona dox na suñu diggante ak sëñ jërëjëf jërëjëf alhaji Busra Sàmbu tegal foofu sa loxo yan bañu yenoon xutba ya ak ab daaliya te att nuñ ko moo ko fab raw gaaña da ngëñ di way te tawatut balaa ya surtout laxwaan yi la am ci laaya sëriñ Tuubaa lu mbir rëy rëy rëy da koy faf dolli ak gëm du yokki du daw di mbër mu far ak boroomam yaa ngi jëm dar nag foofee lañ ko boolee gaynde sunu maam sëñ Modou xëri suñ maam sëñ Modou xëri faa ñan dafa nettali na Serigne Touba moo ko wax ne ko biñ may boole ak gaynde gi dañoo ubbi fi ñuy dugal gaynde gi wax ma ne ma demal boole maag ki may yóbbu waaye ki nga xam ne mu ngi ci kaw étage bi yor fetal dafa wax sëriñ bi ne ko maa ngi lay souhaité deegu neex ndax yow gayndee la nar a lekk maa ngi lay souhaité nga am deegu kii daal deegoo xam ne deew gaynde moo lay lekk sëriñ bi nee na ma waaxu wuti fi gaynde gi nekk bi ma waaxoo ak doole wuti fi gaynde gi nekk ne yonent bi ne jëpp ci sama kanam ne ma bàyyi ma ma njëkk laa dugg bi ko yonent bi ne bàyyil ma njëkk laa dugg sëñ Modou xaree nettali ne sëñ Tubaa ko nettali bi ko yonent bi ne bàyyil ma njëkk laa dugg sëñ Tubaa ne jësub taxaw ñu ne ko ah yow da nga doon jaay fit rek di waaxu demal ndekete booba xorma lay jox yonent bi ngir wàcc gu wàcc ne ko bàyyil ma njëkk la dugg ci taax mi moo jeex na wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kon nag jërëjëf euh, sëriñ Bousra sàmbu di sunu doyen di suñu di suñu mag ci lii nuy def ba noppi di ku ko man di koo xam ne ñun ñii di waxtaan ñëpp ñun sunu edool nga suñu référence nga dañuy xool ci yow dañuy roy ci yow ci sa laabiir sa baax ak sa man a wàcc sa bopp wax dëgg yàlla ñu ngi lay jéggulu sax toogaay bu yàgg bi kon Cheikh Abdoulaye Diop Bichri lu ngi dugg gànnaar waaw gànnaar ga nga xam ne ko fa mas a dem boo dee góor def nañ la jaam ngay jigéen ñeek sar xolle gànnaar ga nga xam ne ku fa mas a dem doon nga seen taalibe gànnaar ga nga xam ne foofee la Abdoulaye ibn Alawi ne hmm. gànnaar ga nga xam ne bu ibnu assan ma nga fa gànnaar ga nga xam ne Cheikh Sidi yaa nga fa gànnaar ga nga xam ne maanaam Cheikh Sadou Abe nga fa gànnaar ga nga xam ne mbooleem sorafaw yépp nga fa te it wa badrun muniirun xaaba fil xarbi zumala amil xarbi zamsan rifhatan wantisara Cheikh Sadou Abi nee na kii nu jàpp ci saw bi muy dem ci géej gi ci penk muy dem ci géej gi bi muy dem weeru fukki guddi ak juróom la waaye bu dellu suyee jant bu weesaar way doon Cheikh Abdoulaye Diop Bichri sëñ Tuba ak gànnaar jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ñu ko tudd ñëpp naa la wax li ñu wax sëñ Touba jërëjëf ci kàddu yu rafet yooyu gànnaar sëriñ bi dafa wax ni ñetti géej a ngi ku dul man Ahmadou da nga cee lab man rek maa ci labul ñu ne ko géej bu njëkk bi ban la Mbàkke mu ni géej bu njëkk gi mooy pexem nasaraan bi tubaab yi tubaab kenn mësta génn ci say mbokk am ak ñoom 24 heures waxuma weer bis lumb te tàggewuñu la mësta am ci histoire tubaab ku mësa tàggook say mbokk ànd ak ñoom nu la ci seeni pexe fa nga mujje mooy fii mooy tomboom kaay leen ngeen ziyaare ko seen sëriñ bi ngeen yaakaaroon sëñ Tuubaa wax ni man rek maa labul ci géej googu te sànq nañ ñu bari ñoo xam ne histoire relaté na ko ñu bari faatu nañu ñàkk seen bakkan ci sax jamono bu yàggul loo xam ne ginnaaw sëriñ Tuubaa la ñi fi mas a bañ ci ku ñuul sax dañ leen a boom Patrice mbaa njiit lu mag la woon dañ koo boom ñoom tubaab bi Sylvanus Olympio ci Togo dañ koo boom ñoom tubaab bi Barthélemy Boganda ci Centrafrique dañ koo boom ñoom tubaab bi Ahmadou Ahidjo ci Niger dañ koo boom Diori Amani ci Niger Ahmadou Ahidjo ci Cameroun dañ koo boom dañoo boom Malcolm X tey tuddee nañ ko yoon wu rëy ci biir Amérique Martin Luther King dañ koo rey ci Memphis te nit ku ñuul la doon xeexal moo ne woon gént naa jamono ngi ñëw dinañu àtte nit ku ñuul ci comportement am ak jikkoom bañ koo àtte ci ñuulaayu deram I have a dream that one day my four little children will live in a nation where there will not be judged by the color of their skin but by the content of their character bañ nanu ba tàyyi ñu rey leen Léopold Sédar Senghor jiite na réew mi dafa àndoon nag ku ñuy wax Aimé Césaire ak Léon Gontran Damas ñu taxawal la négritude ngir xeexal nit ku ñuul taxul ñu am réussite wala Soyin Ka bu Nigéria waxoon na ko kenn mësta jug xeex am victoire ci nit ñu ñuul yi kenn ni ko Cheikh Ahmadou Bamba amee xaadimu rasul moo tax sëtam bi sëñ Abdourahman Mbakke mu sëñ Abdul Quddus mu borom daarul Muxti boo delloo ca Marsiyaam ba ba mu koy woy dafa wax ni bidaayatul xayri minhu qul nihaayatuhu ilayhi min rabbihi waalil munibiina bidaayatul fadli minhu qul nihaayatuhu ilayhi min fadlihi xibbil mutiina xubbul xadiimi ala suudaani muftaradun is xarara sooda min riqil mudilina xat xarara sooda min riqin faqaadahumu lillahi billahi bil maxdoomi hëdina xat anqaza sooda min jëhlin wa min kasalin bil ilmi wal katxi fan xaadoo lahu xiina ki ngay woy ku mu doon mu ne lillahi min xaadimin xat amma xidmatahu kullal bilaadi wa kullal xalqi wa diina sëñ abdourahman nee na cheikh ahmadou bamba xaadim rasul fi nga xam ni yiiw fa la yem fa la sëñ tuubaa xamul début yiiw ak fin wu dafa ñëw léppam yiiw ngëneel fa mu tàmbaleeg fa mu yem ñoo yem ci sëriñ tuubaa diggam ak boromam nin koo gisee ba noppi koo gis léppam la jox yàlla ci ngëneelam yàlla jox ko ngëneelam yépp sëñ abdourahman nee na cheikhul xadim nu ni ko waaw mu ni jëmm la joo xam ni kon sopp ko dafa war ci ñépp waaye rawatina ci deru nit ku ñuul ndax ñun dañoo gëmoon ni nit ku ñuul daa war a toppaate rek warta togg dara warta taxawal dara warta siggi am na sax philosophe bu ñuy wax euh, Hegel doomu Allemagne la moo njëkk a wax ni philosophie di xalaat bu kawe boobu ñuy wax falsafa mënuma koo nangul deru nit ku ñuul ndax seen xel dàggat bokkuñu ci làng gi duñu xalaat teguma leen fenn la philosophie c'est la haute expression de la pensée alors que les Africains ne pensent pas je ne pourrai jamais admettre une philosophie africaine gis nga ni ñu def ak Bilal moo daan noddal yanantu bi alayhi salaatu wasalaam waaye dañ doon saboote siinu mojama mënu ko wax bu baax ba yanantu bi ni siinam ak seen siina yem ci yàlla ñaata lañu ñu lor ci nit ñu ñuul ñi jàpp dañoo war a toppe kenn warta taxawal dara Sëriñ Tuubaa fekk baax fii togge fii añam jànge fii yaru fii génnul ci diggante nijaayam sëriñ Bousso bi fii fekk baax fii ci Bawol liggéey loo xam ne bi mu demee gànnaar ña jàngoon làkku arab ñoo wëlbati ko noonu yaa nu raw ci arab sëriñ Touba waruñoo xalaat sax bàkkaar bi gën a rëy mooy xalaat ni muy woye wala xalaat ni muy tagge wala xalaat cofeelam ci yenantu bi di ko tëkkaleeg benn mbindeef bàkkaar la ñim moom làmmeñu arab ca gànnaar ñoo ku tagg sëñ Tuubaa ni ko yaanu raw ci làmmeñu arab dégg nga wax bi ku ñuy wax Muhammadul Fadil ibnu Ahmadu Dalili al Yanqubi doomu gànnaar bi muy wax ci sëriñ Tuubaa dafa wax ni yow Cheikh Ahmadou Bamba mu ni ko waaw mu ni ko an nahwu wal lugatu ilmul arabi wal juudu wa saqaa'u ahmadu bamba man ala bi rutabi ibnu habibillahi zo taaddubi fa fa fa salabal jamia ayya salabi minhum fa saaru maawu kal qusubi ila asiratu nabil anjami ne ko ahmada bamba ya aqa taqarrubi afa yuhilu laka afa yahilu laka zulmul arabi bi axzi nahwihim wa axzi adabi wa axzi joodihim bi xayri wadabi déggal kii li mu wax sëriñ Tuubaa ci làmmeñu arab daf ko joxoñ ni annaxwu grammaire u arab wal jóodu ak tabe wa naxwu ak grammaire wal luxa ak langue arab bu ñu waxee luxatu mooy vocabulaire ci arab tubaabay wax vocabulaire wala lexique arab luxa lay wax dangay ngay jàngi waat yépp xam ba ne lu muy firi ñu jaar ci programme u arab faaw ñu leen ci muxtaarul adab jaara leen ci ibnu duweyd jaara leen ci daaliya ba keroog ñuy plafonné ci maqamatul xariir door a xam làmmeñu arab xam-xam boobu di luxa naar bi nee na ñun arab yi kenn mu suñu see yëpp ndax ñoo ko moomoon di ci def lu nu neex di ci woy lu nu neex xam-xam bi ñuy wax naxwu muy atte yi tax nga xam idu xawaa'idu naxwiya lu ne lu tax ñu def ko fii lii daa jasam wala buñ koy lexraabal lii dafa binaa wala maf'ulun bihi la wala ismul faay la wala maf'ul atte ya ca aju tubaab bi nee kii naar bi nee na ñun ñoo ko moomoon mm-hmm. ñun ñoo moomoon grammaire arabe moomoon langue arabe waaye tabe dafa fekkoon baax ci araab yi dañoo mënoon a tabe am na lu ñuy wax naarul xiraa jàngkat yi xam nañ léeg-léeg arab su amee ay milliards buntu këram da ciy def benn lumière bu ñuy wax naarul xiraa mooy sawaras bernde lañ ko tudde luñ ci jublu africain kay ñun ñii ñoo baaxoo ñun sénégalais surtout ku am milliard di nëbbatu waaye arab dëgg dañoo roy ci yenant bi ku mas a am milliard da ngay defar làmp sa buntu kër ngir wan gan yi dox bu ngeen agsee sama kër agsi leen wàcc am naay milliards ma dimbali leen ñoom kenn daawul tëju moo tax ñuy defar naarul xiraa kon moo tax ñu leen di tagge tabe am na ku bokk ci ñoom ko ñuy wax xaatimu taahi moo gënoon a tabe ci kaw suuf donte nekkul woon jullit terewul bu ñuy woy ko tabe faaw nu woy ko ci moom dégg nga sëñ Seex Gaynde Fatma ba muy woy maamam xaadima rasul dani ko fil joodi xaatimu naa fil fiqi maaliku naa wa fii fasaatihi yazri bi sahbaana Serigne Touba gàccal na ñoo ci tabe moo tax naar bi ni ko tabe générosité ak mbaax dafa nekkoon sunu moomeel siimatuhum waaye lu xew bi loolu amee bi nu moomee làmmeñu arab moom xam-xamu arab moom tabe dafa am lu xew ci ñun ñu ni ko lu xew mu ni fa jaahahum zoruta bi dañoo am ku ñëw ci seen biir ëpp leen fuuf daraja di Serigne Touba hmm. kuy kooku mu ni Ahmadou Bamba zoruta bi ah la ruta bi sax la wax Ahmadou Bamba mi gën a kawe ñëpp daraja moo ñëw ci sunu biir bi mu ñëwee lu mu def kuy kooku mu ni najlu habibillahi zo ta addu bi mooy ka nga xam ni ka ko jur ka ko jur habibullah lañ koy woowee borom teggin lañu askanoo ci mbàkkeeg mbusoobe ñu ni kuy kooku mu ni bi mu ñëwee ci ñun fa salabal jamia ay ya sala bi danoo fekk ak yooyu ñu moomoon mu nangu ko nu mu ko neexee force le saisir lépp nangu ko ci ñun muy générosité di grammaire di vocabulaire di mbaax lépp la sëñ Tuubaa nangu ci ñun arab yi ko nàmpoon mu ni bi loolu amee fasaaru maahu kal xusu bi naar yëpp lañoo mujj di topp sëriñ Tuubaa xam ni moo leen jiitu ba mel ni kuy topp tiisu garab garab gi mbool mi ni muy toppe ci garab gi sax ci noonu la mujj di di noonu lañ mujj di ko toppe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadima Rasul mu ni ilaa asiratu nabil anjabi ba mu des waa kër yarant bi ñoom rek la war maal bàyyi leen fi waaye ku dul moom jiitu na leen mm. nii nag yow sëriñ Tuubaa kon ahmada bamba maa ngi wax ak yow yaa aqaa taqarubi yow mi gën a jege ñépp yàlla afa yaxilu laka zulmul arabi ndax dafa yell ci yow tooñ arab yi sëñ Tuubaa laaj ko nu ma leen tooñee mu ni ko bi axzi nahwihim <laughs> ci nangu gi nga nangu sunu làmmeñu arab grammaire bi yaa ko moom bi axzi nahwihim wa axzi joodihim nangu gi nga nangu tam sunu tabe tabe bi xayri wada bi te yàqoo dara ñaawaloo dara te nangu nga lépp ba ñëpp xam ne yaa jiitu kooku kenn la ci ñoom am na keneen ku ñuy wax Mouhamadou Hassan al Alawi dañ koo laaj kuy Cheikh baam Bamba gànnaar la ko gisanteeg sëriñ bi bokk na ci njëg sëñ Touba njëkk a jox wirdi wii nga xam ni Sarsara la ko jote fi mu njëkk a wàcc bi muy woy sëriñ Touba dafa laaj jaam ñëpp la laaj dani man doomu gànnaar laa sët laa ci yenant bi ci xasani yoon yi laa bokk ñu ñu naw lañu xasanu yoon yi ñépp a leen respecté danoo sëtu ci yanant bi mu ne waaye li ma yëg ci sëriñ Touba damay laajte laaj nag dafa am lu ñi wax ah, listifhaamul tankiir yi dafa am xam nga yenn saa nga laaj pour weddi dara taw biix yi am yenn saa nga laaj pour saxal dara léegi lu tubaab di wax interogation oratoire jànkat yi xam nañ ko su ma nee euh, monsieur Bouchra Samb ne portez-vous pas un boubou blanc pour je lui ai posé cette question en sachant qu'il port un boubou blanc lu tax nga téye mbub mu weex mi sol ko xanaa solo mbub mu weex pour pourtant xam naa ni lu weex la sol waaye laajin boobu bëgg waxtaan la boobu laajin ci arab la laaje li muy xam dañuy yéen ci am ñëpp laay laaj ku am tontu tontu la ala ya ibadallahi quumu li tashhadu wala taktumu ma taalamuuna fa tahtadu saaltukumu billahi man za raaytumu ala al ardi misla cheikh yarka wa yasjudu fa in qultumoo maa naarifu dëhra mislahu fa xawlukumoo xaqun wa illaa tafannadu shahidtu bi anna cheikha ahmadu lam yakun siwaahu karimun fawqatil ardi yoojadu hmm. déggal kii li ma wax moom lii ñuy wax ci Sénégal di werante jaru ko ña gën a jege yàlla gën koo màndi xam ko ñoo ni sëriñ Tuubaa yow amoo morom dani alaa yaa ibadallahi yéen jaamu yàlla yépp laay waxal waxul murit waxul xaadir waxul ku ñuul waxul ku xees kuy jaamub yàlla yàlla sàkk la ci laaj bi nga bokk alaa yaa ibadallahi ñu ni tekk mu ni xuumoo jug leen li tashadoo ngeen seeral li ma xam ci sëñ Tuubaa ngeen seeral ndax xam ngeen ko ni ma ko xamee xuumoo li tashadoo wala taktumu wala taktumu maa taalamuuna te bu leen nëbbu li ngeen xam ci jëmm ji bàyyi ko Sénégal bu ngeen nëbbee li ci moom rek fa taatadoo bu boobaa da ngeen di tooñ dangeen di jeng mu ni saaltukumoo maa ngi leen di laaj billaay te jëmmi yàlla rekk tax man zaara aytum kan ngeen gis kan ci mbindéef yi alal ardi ci kaw suuf miss la cheikh mu mel ni Serigne Touba moo xam koo xam ne yarka wa yasjudu kuy rukkoo la wala kuy sujjóot ko mel ni kii ndax teg ngeen ci bët mu ne ñaari réponse a mën benn tontu bi mooy waaw gis nañu ko benn waay la bu dëkk Liban waaw gis nañ ko ca Arabie Saoudite waaw gis nañ ko ca Maroc waaw gis nañ ko fii ci muritani benn tontu la su boobaa ngeen ni ma waaw gis nañu ko mel ni moom su ngeen ma ko waxee man leen da ngeen di kàcc la wax te fan na doo dangeen di kàcc su ngeen nee ma déedéet giiru dund ma sunoo gis ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba su boobaa fa xawlu ku moo xàqul seen wax ji dëgg la. wa na du. ah kooku loolu la wax. jërëjëf Serigne Touba def kéemaan gu rëy gànnaar. Mm-hmm. xam nga lan la. alquranul karim la sol nit. Mm-hmm. ci ñetti fan. Mm-hmm. mësut am. gaa yi jàng histoire rek may dégg. ci gànnaar la sole nit. ku ñuy wax Mouhamadou a ak Daymaani ñetti fan la ko Seexul Xaddim jox alquran. est-ce bi muy ñëw ñaari mbokkam la ànda. bi nu ñëwee ñu seet si sëriñ bi ni su neexee gis ñu xam ni sunu xaajo dina faj su naqaree gis ñu xam ne du faj far nu ñëw fekk sëñ Touba ji xayma gi mu génn ñoom ñett ñu ñëw seet si sëriñ Touba ñaar ñi wax seen aajo ay bor lañu amoon soxla ndimbal sëriñ bi jox leen xéewal gu doy moom sëriñ bi laaj luy sa yitte mu ne ko damaa bokk ci giir goo xam ni. képp ku ci manul alquran doo fa tekki dara duñ la may soxna duñ la tudde doom dangay mel ni jaam ci seen biir ngir ñàkk a jàng alquran te sama baaye ma tooñ jëw ma woon daara lii moo metti mbàkke nekk sama naqaru te mu wóor ma ne yaa doon na yanant bi yow la jox alquran la neex nga may ko may ma alquran sëriñ bi ne ko dinaa la ko may waaye da weeru koor dafa nuyoo demal toog ba kori nga ñëw mu dem ci daara ji xaaral ma terminer ko rek mm-hmm. mu dem ci daara ji toog ba kori jàll sëriñ bi génn rek ni ana ki doon ñaan alquran mu ne ko maa ngi sëriñ bi ni ko kaay nu may la alquran mu waaxu fekk sëriñ Touba fi mu taxaw mu jox ko boppam sëriñ bi jël loxoom ba <laughs> teg ko ci ndaalu bopp sëriñ Mouhamadou Fall Mouhamadou Fall waaw <laughs> loxoom ba nga xam ni sëriñ Mbay Jaxate nee na <laughs> alhamdulillahi ndegam man mu bon mii ta njaxam loxo ba kenn amul njëgam tegoon ak saa loxo bi loxo booba la ni tegg ci loxol sëñ Mouhamadou faal ni ko yaa Mouhamad Fall iqra'il qur'aana jàngal alquran ci ko demul woon daara ma commencé alif lam mim zalikal kitaabu ca baqar li hmm. tari bi ji yajidu maa yunfiquun ñaar fukki isib sëñ Touba ni ko xif ca taw ba sëñ bi ni ko taxawal mu taxaw mu ne ko ñaar fukki isib a ngoog bu ëllëgee nga dellu si hmm. mu dem deuxième jour mu dellu si sëriñ bi dóor ci bopp bi ni ko jàngal alquran yow Mouhamad Fall mu commencé innama sabilu di ko tari ba wallaahu yàlla mu maa tas na oon ca an ka bóot sëñ bi ni ko xiif taxawal mu taxaw boo lëggee nga dellu si mu dem troisième jour mu dellu si sëriñ bi dóor bopp bi ni ko Mouhamad Fall jàngal alquran mu commencé wala tujaadilu ahlal kitab ba minal jinnati wan naasi sëriñ Tuubaa di muñ di ko xool naa ne ko yaa Mouhamad Fall aataytuka alqurana taaliman wa tahfisan wa tilawatan may naa la alquran ci mokkal ci tari ak ci di neexal bu ñetti fan yi jot deel wecc alquran karim gànnaar la defe lool sarsaara la jotee wirdu yoon wirdu yoonu murit mu ngi ko amee sarsaara sarsaara lañ ko njëkk a yóbbu wax naa la bi mu ñëwee ba jaar ci dex gi la jaare seex de baaba yebal ñaar ñu ko jël si mu ànd ak ñoom ñu indi li koy gëléem kenn ki da koo togg kenn ki yor gëléem jiitu ñu jaar ci yoonu saara bi ci yoonu désert bi waaye bi ñuy dem ci désert bi fu ñu taxaw sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana nee na Serigne Touba day wax fii de neex naa sujjootale yàlla. jërëjëf sëñ Abdoulaye may leen ko ma wàcc waaw. loolu rek euh, moo ñuy tegtal ci wayi Mouhamed Ibn Hassan. waaw yi nga doon wax. waaw ala ya ibadallahi. waaw qumu li tashadu. waaw wala taktumu ma taxlamuuna fa taxtadu. sahaltukumu billahi man sara aytumu alal ardi misla sayq yarkahu yasjudu ndax mas ngeen a gis ci kaw suuf ku mel ni sëñ tubaa ci rukku ak sujjoot sëñ Touba lu mu a def rek. maanaam fu mu jaar rek julli na fa du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàlla am du tiis ba tax mu war fara tey boromam du déggug nodd mbaab kàbbar te téewul lu taw taw ak lu liw liw ngir boromam du tab ji ba tiim musul di maamoom du gàppuru bis du weerul jullil boromam du yeexal wenn waxtu te masta fay faat la koy wax raw na montar mooy boromam moo tax Cheikh Sidiye di ko xool ba yàgg mu ne asayixu ahmadu nihmatun awlaha hasihi alqalaahi kullaha mawlaha ibnu mohalla dama laa waxul woon ci li nga laaj léegi seex euh, siidiya moom nga tudd mhm. moom it wax na sëñ Tuuba seex siidiya dani wa maa aybuhu illa ibadatu rabbihi wa naful wara fi subihi wa masaihi seex siidiya baaba mi ñu ko dénkoon moo wax ni sëriñ Tuuba ñaari défaut laa xam ci moom ñaari ñaari erreur laa xam sëñ Tuuba ma koy def li nu cëraloon ci waxtu rek moo jeex kon baax na nu ngi jéggulu téléspectateur yépp euh, gànnaar moom sëñ bi toj na ko gis nga ibnu mualla ne na xaasal qadimu min al kamali ajaiba wa maqamuhu fihi l huyulu tahaaru nee na sëñ tubaa moom maanaam kenn koo xam ne bët masta tegi ku mel na ci Cheikh lu Bamba masta am kon mbokk yi euh, lii moo doon jataay bi damay jox sëñ Busara Samb mu wax ay kàdduum yu mujju ñu ñëw ci sëñ Gànn mu wax ay kàdduum yu mujj ñu ñëw ci sarab lay Jóob Bisiri mu wax ay kàdduum yu mujj lu yëkkate jataay bi ba beneen yoon incha allah sëñ Busara looy tàggoo yàlla rek euh, sant sëñ yàlla bu baax sant sëñ Touba bu baax di seereel sama mbégte ak sama can ko seereel yàlla sama borom ak sëñ Touba Xaadim Rasul amuñu jenn tawat amunu benn njàmbat sant yàlla rek lañ def ak xol bu sedd guy. ndax euh, man lii may def nii ren laa ci am ñeent fukki at ak ñeent di ko def booba yaakaar naa ni ñii ma toogal nii ay xale lañu mm-hmm. bu doon ndàmb tey kon tey jii ca làng ga lay toog waaye liggéeyal yàlla moo amut loolu boo gisee conférence guddi yi ma bàyyi ko mooy ñi ma maaseel kenn soloti ci mbubb moom guddi dem ci jànge moom waaye sëñ tubaa itam da dul ñëdd asgor topp nit di ko ñëdd sëñ tubaa du ko def mu koy sant bu baax ci relève bii nga xam ne moom la teg suñ kanam muy xale yi surtout sëñ gànna mi ak sëñ Abdoulaye Diop Bichri ak ku mel ni sëñ Saliou sàmb ak yeneen i conférencier sëñ Ibrahima Fall mii yow nee naa la noo bokk bàyyi xam naa sa papa bokk na ci ñi nga xam ne ñoonu sunu mag yi kaw la xam nga leen ñuy relève boo xam ni dangeen ngeen noo cautionné ci cofeel gii ngeen wan te nii ngeen mel ci man nii la jàng xale yi jàngkat yi mel ci man barki Serigne Touba ñoom ñëpp am ci man estime ñoom ñëpp am ci man considération ñoom ñëpp di ma bëggee di ma bànneexoo fu ma leen fekk. li may am ci yéen ci bànneex sax duma ko am xanaa ci rek ci doom yi ma jur maa ngi ñaan ci barke sëriñ tubaa Mbacké fu ngeen jëm yàlla na ngeen fa yegg te bu leen pakk fil nii rek la sëriñ tubaa lii la bëgg nit ku osé te boo bëggee réussir ci yoonu sëñ Touba bi da ngay boole yaari yëf dangay am da ngay ñeme défi te te ba te bañ complexe te bul am complex gis nga di sëñ tubaa wax bi sëñ Gana di nekk diggante sëñ Mor Anta Sali ak sëñ Touba ak mag ñi in kaana aybi zuhdun fi xutaamihimu fa zaaka bu nafisun laysa yuxsidi nee na man ñépp di war may dox awma ci complexe bu kenn am complexe te nan ñime defi bii mm-hmm. nun léegi waxtaane sëñ tubaa yomb na loo ci wax ñu ñu ñu dëggal ko amoon na ay jamono benn organe de presse fi am boo nee sëñ Touba amul morom ñu censuré ko waaye gis nga leen sëñ Touba fayee tey jii lu la ne man waxtaan yépp laa mën a déglu ki ma gën a neex sax mooy kii wax yu rëy yooyu te kenn du ko dagg kenn du ko censuré koo koy dagg xolu ñi bañ sëñ Touba qualité bépp qualité waxtaan yépp am na na góor góorlu bu baax ci fii ngeen teg seen tànk noo ngi sant boroom kër gi sëñ Abdou Samad ndax nag dafa bëgg yoon wi te gis nga nit mën nañ laa wàcc sax nit for la waaye ku sànni sa bopp ku am fulla du la for te moom sànniwul boppam bëgg na li mu doon bëgg na sëñ Touba bëgg na taalibe yi bëgg na jàngkat yi bëgg waxtaankat yi di leen bégee di leen teral di leen loolu am solo la kon nag yàlla na ko yàlla defal jàmm moo bokkam yépp nag te mbokki sëñ tubaay yi njabootu sëñ tubaa gii nii ñu def sëñ Muntaxa yàlla na leen ko yàlla fay noonu de daaru minam lanu sëñ Muntaxa sama sëriñ waaye xoola li ko bokkam yi def kenn ku ci nekk yéene ko xilaafatoom gii kenn ku ci nekk dar ko li nga am lépp nga dikk ak moom ci yéene ko ndam bëgg ko ku ko ciy xool ca kaw nga koy xool lu mu la woon rek yàlla fay na ko ko ci bokkam yi ak ci bàyyi taxam yi ak ci rakkam yi ak ci murid saadixam yi ak seexi sëñ Tuubaa yi. jërëjëf noo ngi ñaan ci ji borom Tuubaa yàlla nañ fi dajawaat na gën a si déwén kon nag joyeux safar yéen ñëpp noo ngi leen ci ndokkeel bu baax sëñ Gana euh, di la béggee bu baax damaa laa bëggee a décontracté rek yow xam nga yow euh, yaakaar naa ñëpp maa la ci a xam <laughs> waaye nag du ma yeesu foofu euh, <laughs> xam nga ni kii moom. ñëpp maa ko ci gën a xam moom <laughs> jërëjëf Sëriñ Moussa Samb ci kàddu yu rafet yooyu sëñ Gana nag xam ngeen ne moom ak cofeelam ci Sëriñ Touba doonut rek lu muy wax waaye lu muy dund la ci xolam te man sama rakk la maa ko yar te loolu moom du ko weddi man maa ko yar xam naa ko bu baax xam naa ne ku bëgg sëñ Touba la ba muy gone ba nëgg ni foo tuddee sëñ Touba mu jooy xam naa ne ba muy tuut tànk laa ko xam waaye foo ma sa tuddee sëñ Tuubaa mu jooy ku nekk xam ne ne émission bi xamutut lu muy wax ndax booba ba ni bi sëñ Busra di wax ak moom bi muy wax yëpp xelam dafa dem ci sëñ Tuubaa ak lam doon daj tuuma yiñ ko tuumaal natt yu metti yi nga xam ne nee na daj na loo xam ne du ko nettali daj na loo xam ne nee na lu ma du nekkali maa laa askuro abadan te adduban du ma ko nettali mukk ndax lu ñuy suturaal la xam nga ne loolu métti na kon sëñ Gana lu ngi lay sant di la gërëm xam nañ ne wax dëgg yàlla génn nga plateau bi ndax sa cofeel ci Serigne Touba waaye rek nga indi sa kàddu yi tàggoo. jërëjëf sant uh, kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo doon waxtaan sëñ Bouchra ak sëñ Abdul Abdoulaye Diop Bichri ak sëñ Ibrahima Fall yàlla na nu sëñ bi fay rek te nangu lépp yàggal fi sëñ Abdou Samad ba yàlla fay koo yéeneem ci jëf ji bu jëf yàggal fi sëñ Muntaxa defal nu màggalu jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Gànna euh, Cheikh Abdoulaye Diop Bichri yaa ngi woon gànnaar waaye da nga ma ci may nag beneen plateau ci biir màggal ci incha allahu rabbi maa la ko dig gànnaar moom bëgg naa nga dugg fa ba xam ne yor der bu ñuul lu waral ñàkk jiit du waral des ak dégg yor der bu ñuul du du du du tee li nit ñi xalaat nga di ko xalaat li nit ñi xam nga di ko xam may yàllay may itam mu may la ci loolu sëñ Tuubaa ko weddi dugg biir gànnaar dagg buumi jaam yi libéré nit ñi sa kaddu yi mujj sëñ Abdoulaye Diop waaw xanaa sant bu baax santaat El euh, Hadj Bouchra bu baax kàddu yi mu wax dégg nañ ko bu baax kàddu yi soññee la kàddu yi rafet la kàddu yi encouragement la kàddu yi gën ñoo jañ sa ci liggéeyal sëñ euh, te dégg nañ ko baax nañ ko jëfee waaye nu ngi koy ñaanal ci barke sëñ Tuubaa fanam gudd lool ba guddi gi fanam nekk kéemtaan te sëriñ bi defal ko ngërëm ndax ñun ñëpp loolu la ñuy wut yàlla na ko sëñ bi def ngërë defal ngërëmam biir ak biti nu ngi koy ñaanal bu baax di ko sant ci kàddu yu rafet yi di santaat alaaji Gana Messere di ko ñaanal bu baax fan gudd te wér ndax jàmbaar jàmbaar la ci yoon yi woo xam ne sëñ bi rek lay dund dafa bëgg sëriñ bi xam nga émission boo ko seetloo rek dootoo xam sax looy wax jàll na bu yàgg sëñ Tuubaa moomu nag tuur rongoñ ci moom sëñ Fallou nee na ku ko def def nga farata saf ku dumoo ay li hubbil xadimi fardan arahu kon yàlla na la sëriñ bi fay te gën laa taxaw ñu ngi sant suñu jàmbaar ji nga xam ne suñu sëriñ la suñu soppe la ndax nit bu la jëlee rek yóbbu la baytullaahil xaram wax dëgg yàlla defal na la lépp te sëñ Abdou Samad defal na la loolu fekkoon nañu dem màkk waaye yóbbu nañu màkk te loolu ku la fa yóbbu rek mënatoo koo fay ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool ci barke Serigne Chouaib waaw ah, di ko santaat bu baax lii alaaji Busra wax moo ne ci moom yoon wi rek la bëgg yoon wi rek sëñ Touba rek lay dund waaw moom jàpp na ni fekk yorul lu bari sax di tuur nit ñi xéewal du sawar a gisee kenn moom bala moo gën a sawar a gisee nit ñi rek mooy xéewal yi bari muy séddal lépp ngir jëmi sëñ Touba kon yàlla ko sëriñ bii dollee sàmm te yàggal ko yàggal fi sëñ Muntaxa màggal gi yàlla nañ ci àgg ak jàmm te am ci ndam ak tawféex te gën koo waajal te xam amuñu lu dul moom amuñu lu dul moom ki dox sa digg ak safara di sëriñ Touba bis bii mu ni santale leen ma ci yàlla moom rek lañu am kon dañu ko waajal te santale ko ci yàlla nag wax naa démb defe naa ci benn tele nee naa ñun Serigne Touba suñu gëm ko nekkul condition sunu lëggéeyal ko nekkul ci condition dañ ko jox suñu lépp sans condition lu mën a xew baax na foofu ñu mën a fekk jox nañ ko suñu bopp moo nu gënal suñu bopp gënal na suñuy jëmm gënal na suñuy ruu gënal calcul lépp lañ jox sëñ Touba kon yàlla ñu sëriñ bi defal tawféex ñu ngi sant mbokk yi doon seetaan yëpp di leen baalu ak di la sant yow bu baax ci sa taxawaay di la gërëm ku baax nga ku yaatal nga te lii ñuy def dàq ñu la ko yaa ñu ko dàq sax waaye sa mbaax a tax nga ñëw woyof jël ko di ko sédd leen rafet nii waaye li ñuy def lépp yaa ñu ko gën a xam yàlla yàlla sàmm la yow it ñu ngi lay sant bu baax a baax jërëjëf Cheikh Abdoulaye Diop kon mbir maa yaa bind cey ak la jër cey yaa gën a rëy ña naa cey ak ñañu naa cey menn mbër nga mu rëy yaa ëmb adduna ji yaa ëmb adduna jee yaa ëmb ñuy ëmb ñépp ak seen i ëmb di wéy yàlla nañ àgg ci bis baak jàmm te yàlla defal jàmm Cheikh Abdou Samad wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Sénégal xéewal gu bees tàq moo ngi nii bu leen ko kenn nettali loolu mooy